compte mm-hmm. OFNAC mm-hmm. IGE mm-hmm. corps de contrôle yi fi nekk yëpp tey war man pour man lundi war nañu ne ni nangami nit ñu ngi leen war a convoquer pour nangami mbir parce que euh, prédation financière foncière daanaka sur lépp li fi am man jàpp naa ni président tuutiwul pour accuser gratuitement président la mu wax. Mhm. ba sañ ko waxee noonu. Mhm. ñu puus ko ci sax xaw ko ci ërtal mu koy doog a génne daanaka tuuti. Mhm. c'est parce que yaa une réalité boo am ci loolu. loolee nag moo tax ba bërki dem may wax. naan ni ki nekkoon ci nguur laataa ngay waxaat tey. naan yaa ngi politique wala yaa ngi xeex entre frère ak beau frère. nañu lijjanti reddition des comptes ba mu leer ni diw def na wala diw deful. wala nangam. bu boobaa nag. nga mën a génn fëgg sa dënn ne ni mm. man ba may dugg ci langue politique bi parce que seetal nañ ma sur tous les plans mm. mais ce qui se passe te am na benn laaj boo xamee ni dégguma ko te man doon naa ko xaar mooy mbirum protocole boobu ñu doon wax ca Cap Manuel ak mm. xaw ma ndegam protocole ba am na <laughs> wala amul moom ne bokk na ci ñu ko wax ne ni bokk nga ci ñi bénéficié wu ci protocole boobu moo jàkkaarloog président la mu koy wax mooy est-ce que loolu am na. Mhm. wala amul ndax bu dee am na euh, caisse noire ak réduction de comptes nañ ko jël teg fële. Mhm. bu dee amul nañu lijjanti lépp lu jëm ci yooyu nga xamee ni ñu ngi ko ci doon wax. Mhm. yaakaar naa ni bon pour bañ a guddal te xam naa ni. ci suba bi léegi ñu ngi toog de. Uh-huh. renégociation compte yi wax na ci euh, négocier waat ñu compte yi euh, comment dire contrat yi nga xam ne jaar na fekk yooyu yëpp.